bonjour asalaamaaleykum sama gars yi voilà dal leen ak seen seen Like Mobile votre chaîne de technologie tey dañ leen indil beneen astuce ba am important euh, ñu baleen gën a plus bu ñëwaat. Like Mobile votre chaîne de technologie n'oubliez pas de vous abonner et aimer la vidéo merci. alors bonjour salaamaaleykum sama gars yi voilà j'espère que yéen a ngi si jàmm euh, it maa ngi si jàmm tey dañ leen indil beneen astuce ba important euh, voilà sans plus ñu lay ñaan bul fàtte. ba si bouton abonné bi daal di aimer bi euh, def benn commentaire pour gën ñoo encourager pour euh, astuce boo xam ne laaj ngeen ko rek ñu dugal comme ni ngeen ko laajee voilà tey astuce bi leen di mooy naka dafa supprimer benn message boo xam ne plus de deux mois la sa téléphone maam moo xam lu nga bëgg ko supprimer léegi nga bëgg ko supprimer mais euh, boo ko bëgg a supprimer danaa la message bi date bi mënoo koo supprimer parce que dafa maanaam message mënoo ko supprimer parce que date bi dafa passé voilà bu ngeen xoolee kii dama ko envoyé benn message léegi message bi dama dem ba xam ne jëm koo supprimer voilà léegi boo ko bëggee supprimer danaan ma mën nga ko supprimer mu denc sa téléphone mais du denc sa ki nga xam ne da nga ko envoyé voilà parce que maanaam lu tax date bi nga xam ne da ko ko envoyé woon date boobu bu jàllee rek message boobu dina dina mën a denc sa téléphone mais du mën a denc sa ki nga xam ne da ko ko envoyé léegi bu ñu xoolee info de maam message bi muy nii maa ko ko envoyé dix neuf heures cinquante moom ma ko gis dix vingt heures deux minutes liir ko vingt heures deux minutes heure bi mu ko gis rek mam heure boobu la liir lire automatiquement voilà léegi message bi maa ngi ko envoyé dix neuf heures cinquante minutes voilà euh, ma ngi tolloog date bi vingt quatre mars bu doon da nga ko envoyé vingt quatre janvier nga dem ba vingt quatre mars nga bëgg koo supprimer léegi mën nga koo supprimer euh, voilà. léegi pour nga def ko nag c' est très voilà léegi bu ñu xoolee message bi mu ngi nii léegi message bi maa ngi tenté pour supprimer bo sonn mais danaan ma mën nga ko supprimer si yow waaye mënoo ko supprimer mën mën ko mën mën a denc si nga xam ne da ko envoyé léegi nan ngay def mooy da génn nga dem xool WhatsApp nga jël WhatsApp nga cliquer ko voilà boo cliquer fii la lay da lay indil yi table yi léegi nga cliquer fi mu la bindal info de l' boo bindee boo cliquer info de l' application fii lay lay dugal parfois am na téléphone yoo xam ne du la mën a permettre pour nga def ko mais da ngay génn léegi boo génnee nga dem dugg paramètre. voilà léegi dañuy def retour ñu dem dugg paramètre ñu xool beneen méthode bu ñu ko mën a jaaree beneen yoon voilà léegi bu ñu duggee paramètre sama bu gën a gaaw mooy dañuy bës ba adresse ñu tap WhatsApp léegi na dem recherche WhatsApp voilà léegi WhatsApp mu ngi nii. léegi sa bu tijjee ko léegi fii la lay dugal léegi euh, léegi nan ngay def mooy da ngay dem nga def sa téléphone mode d'avion pour benn notification du mën a wàcc si téléphone ah, euh, sans avant ba ba ba korog maana ngay régler message boobu supprimer ko ba pare léegi nan lay def mooy dañuy dem def suñu téléphone mode d'avion léegi ñu dem def suñu téléphone mode d'avion voilà léegi def na mode d'avion ba pare léegi fan lañ cliquer mooy forcer d'arrêt mooy avancée de des données yëpp c'est la même chose parfois ça dépasse si téléphone rek voilà léegi cliquer nañ force d'erreur ba pare léegi fan lañ cliquer mooy stockage léegi dañuy cliquer fi mu ñu bindal stockage voilà léegi bu ñu cliquer stockage ñu euh, ñu bind euh, ñu ñu ñu cliquer fi mu bindal effacer euh, la cage maam effacer la cage moom lañuy cliquer mook supprimer la case yëpp c'est la même chose voilà parfois si téléphone bi rek nga xool fi mu la bindal effacer la case wala supprimer la case voilà euh, wala vider la case lépp c'est la même chose léegi def nañ vider la case maam effacer la case ba pare léegi la lay def mooy euh, dañuy dem duggaat paramètre voilà léegi paramètre lan lañ fa def mooy mooy message bi ña ngi ko envoyé vingt quatre mars te tey ña ngi si vingt cinq mars léegi dañuy dem euh, à à dix heures cinquante euh, dix dix neuf heures cinquante léegi day dem changé waat date bi changé waat heure bi comme ña ngi waat si bis boobu nga xam ne ña ngi waat ngi maam ña ngi si bis boobu noonu maam comme ña ngi si bis bi nga xam ne si leen envoyé waat message léegi dañuy dem dugg si ñu xool date heure léegi pour recherche bi di a gaaw moo waxaa leen ko dañuy dem tàppe ba de recherche bi voilà pour cette date et heure voilà voilà léegi date heure mu ngi nii léegi ñu cliquer date et heure léegi lan lay def mooy fi bindal définir la date dañu cliquer fi ñu bindal défini la date wala euh, pour ñu mën a changer maam date bi voilà léegi euh, ña ña ña message bi ma ngi woon euh, vingt quatre mars lañ ko envoyé léegi te ña ngi si vingt cinq mars aujourd'hui léegi dañuy tourné waat defaat ko vingt quatre marche léegi heure bi ma ngi doonoon dix neuf heures cinquante minutes. léegi ñun day ñëwaat def ko dix-neuf heures quarante-huit minutes voilà léegi ñu def ko dix-neuf heures quarante-huit minutes voilà dix-neuf heures quarante-huit minutes dix-neuf heures quarante voilà léegi dañ koy def dix-neuf heures quarante-huit minutes léegi nan lay def mooy dañuy tourner waat ñu génn demaat suñu WhatsApp feen duñ fa duggaat dañ dem direct sa whatsapp ba euh, pour mën a supprimer message boobu noonu message bi nga xam ne dañ koo bëgg a supprimer mu ñuy laaj date maam mu ñuy laaj ne mënoo ñu ko supprimer léegi dañuy cliquer message bi voilà léegi buñ cliquer message bi léegi buñ cliquer whatsapp léegi ñu dem xool message bi voilà léegi whatsapp bi mu ngi léegi message bi moom lañ bëgg a supprimer woon mais dañoo laajoon ne mënuñu ko supprimer léegi automatiquement fi ne nii rek buñ toppee pour supprimer ko dinañ ko mën a supprimer à tous parce que date date bi defar na voilà léegi yéen a gisando gisandoo léegi bu njëkk ma ngi defal supprimer pour moi maanaam dama ko mën a supprimer pour man rek léegi mën naa koo supprimer pour tous parce que date bi nga xam ne maam dama ko envoyé léegi date boobu moo fi nekkaat comme si que maa ngi koy doog voilà léegi bu la neexee mën nga ko supprimer à tous bu la nee nga supprimer pour moi mais comme que yow da nga suwaawoon pour supprimer à tous pour mu denc si yow denc si moom voilà léegi da ngay dañuy cliquer supprimer à tous léegi ñu cliquer supprimer à tous voilà léegi bu ñu xoolee suuf gis nañ message bi supprimer noonu si ñun léegi automatiquement moom léegi day denc si moom euh, moo xam nag message bi ak lan façon message ma euh, message si maanaam envoyé vocal léegi mais léegi mën nga koo def vidéo wala photo. wala lépp loo xam ne envoyé nga ko WhatsApp rek nga bëgg toog ba dimu jëm nga bëgg ko supprimer rek léegi euh, comme fii ñu jaar fa ngay jaar pour supprimer ko léegi mën nga ko def vidéo wala photo wala lépp loo xam ne da nga ko bëgg def léegi mën nga ko def pour supprimer ko dooñu jël message rek si vocal voilà sama gars yi léegi ñu ngi leen ñaan bul fàttee ba sa si bouton abonné bi aimé vidéo partagé ko yaa ngi jëf sama gars yi Like Mobile votre chaîne de technologie n'oubliez pas de vous abonner